1% avance pour jërë ngeen euh, yi ñuy topp fii ci Info 7 TV kon ñi daal di ñëw gën ci xibaar bi nga xam daal mu ñu dàpp te bàyyi ko fële ca Soudan Soudan tey dañoo yeewoo coup d'état bi nag ba jamono ji ñuy wax ak yéen euh, mi ngi am foofa sa Soudan fi mu toll nag daal di nañu jàpp euh, ministère yu bare bari ba ci premier ministre ba jamono ji mi ngi ci loxo ñi daal ñoom ñoo di militaires yi waaye it di internet ba fële ca réew Soudan coupé nañ booleem réew ma lii di internet ba moom coupé nañ ko teewul nag waa réew ma ñu ngay génn di manifester ndax coup d'état bi ànduñu ci ba tax na daal ñu ngi taal mbedd yi bare bare bare bare bari euh, ca réew mi fépp ñoo ngay manifester daal ci armée bi nga xam daal ñoo bëgg a foqati lii di nguur ga foofa ca Soudan waaye nag ñoom daal dañu ne ànduñu ci li nga xam bi euh, moom la daal di rek euh, bëgg a def ba tax na daal nga xaasi daal moom moo yenn ci bërëb yu gën a waaye it daal ñu jàpp ñenn ay ministre la wala takkoon ay ndomba tànk ba ministre ba ñu teg ko xaar daal confirmation ñi nga xam daal ñoom ñoo def euh, xam ñan la ak moo tax ñu daal di gi foofa ca